Conseil sénégalais des chargeurs COSEC moo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf yéene kaay tey fu ne la nu fale réew mi quotidien di kaat ci ndam lu rëy li nga xamante ne Mbagnick Diop am na ko ca diwaanu Paris la France di ko méngale sax ni grand oral bi nga xamante ne moom jiital MEDES bi daal dina koy waneati ca fi nga xamante ne moom mooy Paris ci li mu doon teew ni ek Paris bi nga xamante ne ay kàngam yu mag la doon dajale foofee ca diwaanu France ñu ci doon waxtaane Sénégal 2025 nus mën a def ba gën yokk ak baral li nga xamante ne moo jëm ci wàllu transformation économique ak ak sociale moo tax it kàddu kàngam patronat sénégalais bi bokk na ci li mu fësal lu ñuy xaar ni réponse technique ak politique jëm ci gis-gis bi nga xamante ne Sénégal war na ko ci am ngir ëllëgëm yokkute bi nga xamante ne war naa jëm ci wàllub économie numérique ak lu ñu war a door tamit exploitation hydraulique fii ak atum 2023 taxawaay bu am solo bi nga xamante ne xarale yees yi tamit war nañ ko ci am yile ponk yépp Mbagnick Diop àdduna ci ci kanamu ay kilifa ku ci mel ni directeur des affaires internationales bu EC Paris waaye tamit njiital club développement international naka noone directeur général bu HEC sunu naataangoy di yëgle ni kon ba mu daanelee ci ay kaddu am kàngam yi teew ci ndaje bi yëpp dañu ko téeñal ndax li mu feeñal ni ay secret l'observateur xëy fësal ay secret yi nga xamante ne ñoo lalu ci ay milliards yi nga xamante ne moo ñeel budget 2021 ci réewub Sénégal yéene kay groupe Média bi di ci fësal yokkute bi nga xamante ne mu ngay toll ci 260 milliards ak lu teg àdduna waaye tamit ci plan bu bees antidérapage bi nga xamante ne njiitu réew mi daf ko nas jëmale ko ci personnel bi nga xamante ne bëri na lool li mu jàpp ni dañu koy jëfandikoo kopparu réew mi te yenn say duñu ko teg ci yoon li ñu tegul ci yoon mooy coow li nga xamante ne judd na ci ojo bi nga xamante ne day fësal ab audience bi doon am diggante Ousmane Sonko ak njiitu réew mi Macky Sall Abdoul Aziz Tall xam-xamam màcc ci wàll wi rawatina ci wàllu politique ak yoon gis ni débat bi ci boppam nekkul luy rafetal der ñi nga xamante ne ñoo ko sekk muy Ousmane Sonko ak kii di Mansour Faye ci boppam bu Sénégal coow loole dox diggante Ousmane Sonko Mansour fay ak sax léegi Yakham mbay Vox Populi lamb golo la ko tuddee ci lamb googe dafa mel ni Yakham mbay am na ci solo lool l'observateur di xam ne ni moom njiital quotidien national bi taxawaayam làkk na ay lajj ak gàkk-gàkk yi nga xamante ne Mansour Faye fësal na ko Cheikh Tidiane Koulibaly mooy ki fës ci xët bu njëkk bu yéenekaay bi di Sud Quotidien moom premier président bu Cour suprême addu ci coow li dox diggante chancellerie bi ak union des magistrats bu Sénégal Koulibaly di xamle ci yéenekaay bi ni joriñ ji ñu dénk wàllub yoon moom amul benn sañ-sañ di teg ay daan ay magistrat président bi yamu ca ndax dafa jàpp ni du nangu benn yoon magistrature bi moom ñu xëy di ko politiquer président Coulibaly yamu ca ca Vox Populi dafa xam ne ni lii moom day wane lu bees ci li nga xamante ne moom mooy magistrature bi te cawli ci boppam nekkul luy jëm kër Macky Sall ci soppi gouvernement bi la jëm le témoin yéen kay njott ni njiitu réew mi ci boppam boo moytul dina fi jële ñenn ci ay jëwri ñoom li ko waral suñu naataangoy di xam ne ni plan Sénégal émergent ci boppam ngir jëfee ko dafa mel ni am na jëwriñ yi nga xamante ne dénk na leen wàll wi te dañu ciy tëlee ndax rythme yi nga xamante ne ñu ngi koy doxalee naka noonu ne ministre technique yi nga xamante ne seen xarañte desandi na leer Dakar Times di leeral tey doomu français yi nga xamante ne ay jullit lañu te nekk ci réew France ak bët bi ñu leen di xoolee moo ne de seen taxawaay ci l'islam am na solo lool moo tax yéenekaay bi di ci sukkandekoo ci ab rapport bi nga xamante ne fësal nañ ko ci muy sàkku ñu àddu ci doomu France yi nga xamante ne ci confession musulmane la ñu nekk IPRES moo nekk ci guute gu métti métti libération suur yi nga xamante ne moom la nemmeeku foofu ak lu ëpp juróomi téeméeri millions yi nga xamante ne dafa réer may te ñu ko def yoon di leen di topp jamono ji stade yéene kaay xëy topp suñu gaynde yi ba ca diwaanu Maroc ga ñu nekk ngir waajal seen jongante seen digganteek Maroc ci biir yéene bi